Kato ak yéen ñu ñuy seetaan te di ñu déglu sëriñ ay Aïdara Mbacke président mouvement Servir Touba moo leen di nuyu di leen siyaar ci ku nekk ci turam ak ci santam ci nuyoo boobu itam ñu ciy jiital sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacke xalif général di murit di ko ñaanal suñu boroom tabaraka wa taala yokk ko ak wér guddal fanam lool loolu lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ yi mu def ko ci ne mu ko bëggee di ci nuyu di ci ñaanal itam sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Massamba suñu borom gën koo mooy fan wu gudd gën a wéral cëram ba li ma liggéey yéene yéene liggéeyal sëriñ Massamba mu def ko ci ni mu ko soobee ñu wowoon leen fii tey di waxtaan ak yéen tey waxtaan ak sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy déglu di ñu seetaan ci dëkk bi nga xam ne mooy Touba ñu dëkk fi bokk fi bokk ci ndaw ñi te dëkk bi ëllëg war a dem ci suñuy loxo ñu war koo préparer kon ba bu ëllëgee lépp loo xamante ni ci inconvénient lay doon rek du ci am ndax Touba dafa doon dëkk boo xam ne dafa am solo lool lool ci Sénégal te ñu gis ne ni dëkk bi war a doxe dëgg-dëgg dafa des te loolu itam doon loo xam ne bu ñu ko waxul ëllëgati si biir li ñuy gaar tuur wi ci suñu kaw lay tege ndax Touba doon na dëkk boo xamante ni si tey bu ñu xoolee lu jëm ci wàllu euh, mbalit mi ci biir dëkk bi ñu commencé foofu bari na lool te ji amul fenn fu nit mën a jaar rawatina ci nawet bi ndax mbalit mu bari mi ci biir dëkk bi li waral loolu itam mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te war a yor loolu lu jëm ci wàllu lu mel ni mairie bi lu jëm ci wàllu mbalit moomu am nañ ci lu leer ne li ci war a dem ñoom ci seen jëmmi bopp fi mu war a dem defuñu ko fa waaye dañ ko def ci seeni force kon dëkk bi ñu war a taxaw ci loolu nañ ci jóg ndax ndaw ñi dëkk ci dëkk bi jógal nañ ci seen bopp te buñ ci jugut ñun ndaw ñi daañu ci jug te duñ ci bàyyi kenn di dem ci nam ko neexee lu jëm ci wàllu courant bi itam xam nañ ne électricité bi dara doxu fi ndax Touba dëkk la boo xam ne benn dëkk waru koo gën a leer te bu guddi jotee kenn dutul ñemee dox ndax làmp yu lëndëm ba noppi sécurité bi amul ndax ñaari fan ñett nga dégg koo xam ne agressé nañ ko wala ñu rey ko ci Maliforo lu koy waral mooy ñàkk sécurité bi ba tax ba tey Euh, biir dëkk bi lu jëm ci wàllu euh, lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram loolu itam bëgg nañ nit ñi bàyyi ci xel te ñi ko yor ñu wax ci ndax exemple bi ñu ciy joxe mooy président de la république Macky sàll ñëw na fi teg fi hôpital boo xam ne teg fi xeeru hôpital boo xam ne ci 40 milliards la àgg ba ñu teg xeer wa ba ñenn ci ay nit jug jot seen commission bi ñu jotee seen commission rek dañoo dem bàyyi hôpital ba fi mu nekk nii boo demee seng yañ fa wërale woon sax jóge na fa kon kilifa yooyu nga xam ne ñoo doon dox loolu ba jot commission ba bu fekkee ne dëkk bi rek moo leen ñor tañ doon ay sëti Sëriñ Tuubaa nañ wax ci loolu te wax ceeg ñi ci war a waxal ndax dëkk bi dafa am nu mu war a doxe lu jëm ci itam euh, ci wàllu hôpital boobu ba tey dëkk bu toll ne Touba benn hôpital rek la am bu mag muy hôpitalu janatu te ku nekk xam na ne jannatu paj ma seer na lool doy na yéeme na lool ndax euh, li ko waral mooy da gis sax ku yenu malaatam yóbbu mu àgg ñu génne ko hôpitalu ndaamaatu bi itam bokk na ci hôpital yi fi nekk te yoon wi ñoo ko fi defal bopp seen bopp léegi kon état bi moom ana lan la jariñ Touba ci wàllu santé loolu itam bu fekkente ni si dañoo bëgg a jël Touba génn ko ci Sénégal nañ ñu ko wax ñu xam ko ba bu boobaa waa Touba ak doomi Touba jël seeni ay matukaay ndax kat dëkk bi moom li ma waxoon rek ñun ñoo ko moom te ñun ñoo koy defar kon sant bi itam lu am solo la ci dëkk bi ñaareel ba itam damay ñëw ci lu jëm ci wàllu lu mel ni wàllu mbay mi wàllu mbay mi ministre bi Pape Abdoulaye Seck du ma ko ragal damay tudd turam dafa lëkkaloo ak directeur bi ngir lépp loo xam ni aw jiw la ñu ko daan demand doon ko jox baykat yi wala ñu ko doon jox sëriñ si nekk ci dëkk bi ñuy bay képp ku nekk xam nga ne fii ci tuubaa ñi fi gën a mag doon ay baykat ay sëriñ lañu doon ay opérateur économique yu mag bindu bi ñu bindu woon ngir am ci jiw woowu état bi daf leen koo xañ jaare ko ci Pape Abdoulaye Seck ak directeur bi dem jox ko ñoo xam ne leer na leen ne bayuñu tey bayuñu ëllëg te xalaatuñoo bay ñu jox leen jiw woowu ngir ne ñoom seeni nit lañ ñu leen di jàppale ci wàllu politique loolu itam ñu ngi koy dénoncé di wax ne bu fekkente ni si dañoo bëgg a xeex sëriñ si nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di bay ñu jël jiw woowu retourné ko dem jox ko ñeneen ñoo xam ne ay niti politique lañ ay niti politiciens lañ nañ ñu wax kon ëllëgati si biir ñoom lan lañ bëgg ci réew mi ginnaaw loolu itam ñuy wax ne di dénk population wu Touba tey dénk képp ku fi yeewoo itam nañu gën a vigilance ñu gën a bàyyi seen xel bu baax a baax a baax ndax bërki démb lañu ñu lu jëm ci wàllu parrainage bi ngir nit ñi dem dagaani baatu askan wi ñu jot ñu parrainé leen ñu mën a nekk candidat ci présidentielle yi ñu xëy suba ñu dégg ci daaru minam ci clinique bi benn xale bu ñu fa sàcc kon askan wi nañu gën a vigilance te xam ne ñi ci état lu ne dina leen jaral def ko ngir des ci état ñëwagul ci yi tam lu ne dana leen jaral def ko ngir ñëw ci état rey gi ñuy rey xale yi sàcc gi ñu sàcc xale yi ci politique yi loolu yéeme na jéggi na dayo kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñaare letam euh, lu jëm ci ñëw gi fi njiitu réew mi ñëwoon muy président de la république ku nekk xam na ne mag sàll ñëw na biir Touba ñëw gim ñëw biir Touba itam bi muy ñëw dañ ko def ci lu ñu nëbb lu waral loolu c'est parce que ñëw gi jubul am na lu ko fi indi loo xam ne jubul loolu nag bokk na ci ñi nga xam ne ay sëriñ lañ ci biir dëkk bi ñu campagne leen ñu jaay seen ngor jaay seen dignité ba ñu jox ngir xaalis bu ñu leen di jox ñu sax saxe askanu tuuba génn ne dañuy wax ak ñoom ngir ñu jàppale ko te ñoom ci seen jëmmi bopp ñi mag sàll bi di jox xaalis boobu xam nañ ne dañ koy nax ndax xam nañ ne moom mënul am fii ci dëkk bi dara ndax du sécurité du santé du éclairage public du dara loo xam ne defal na ko Touba kon ñooñu nga xam ne dañuy woote woone moom dañ koy jàppale ngir ëllëg mu am deuxième mandat dañ koy nax ndax lu jëm ci cinquante association ak quatre-vingt-trois daayira ak ay mbootaay yu xeet ay mbootaay yu bari ñu ngi lëkku ci sama ginnaaw ñu àndandoo danañ sensibiliser nit ñi ñëpp ñu xam ne seeni carte ñoom ñoo ko moom bu leen benn sëriñ campagne ba tax ñu wooteel ku leen neexul wala ñu parraineel ku leen neexul fii nag Touba la sëriñ buñ fiy topp dañ lay topp ngir sëñ Touba waaye toppuñ la ngir politique bi ngay jàppale président de la république déedéet te taxaw nañ tey man ak mbooloo mi nekk ci sama ginnaaw ñëpp bis naka tey danañ commencé képp koo xamante ni si rek nekk nga fi ne da ngay jàppale njiitu mi nga xam ne defalul dara waa Touba ba dara booloo danañ la xeex danañ la contre te lépp lu luñ ci góob itam danañ ko gar ñu nekk fii itam di wax ne jàpp nañ ne ñoom ñoo jël raw gàddu gi fi wala ñoo ko war a jël ñu ngi nax seen bopp. waaw loolu bari na loo xam ne liñ naan lu tax lu mu jege taxal ko loolu incha allahu rabbi ñaan nañ ko yàlla te suñu dignité suñu ngor ma dinañu ko dinañu ko may ba ba duñu bokk ci ñooñu ndax li ma wax rek dañu bokk ci doomi dëkk bi nekk ci dëkk bi war a dundal dëkk bi kon ñun luy dundal dëkk bi rek moo ñu ñor luy dundal dëkk bi rek moo ñu intéressé te du dañuy wax lii tey bu subaa leneen am ñu bàyyi la ñu waxoon dem mu dem toppi lii am tey ñun bokkuñu ci ñooñu te duñ ci bokk bu soobee yàlla. man nag dama doon koo xam ne ci ci société civile bi laa bokk. ba noppi samay yitte ak samay activité yépp ma di ko doxee fii ci biir dëkk bi ci Touba ndax doomu dëkk bi lañu ñi nga xam ne ñoo ne ci état bi ak ñi xëccu jëm si ci état bi amu ci kenn koo xam ne boppam moo ko ñor moo tax ñu ne danañ jug si nit ñi wax leen ñu xam ñoom ñooy ñan ak ñooy kan ak liñ bëgg fan lañ ko mën a amee ak nan lañ ko mën a amee politiciens yi leen di naxit ñu waxtaan ak ñoom ba politiciens yi leen di nax ñu xam nu ñuy def ba dévier leen te bañ a jëflante ak ñoom ñoo xam ne li ñuy wax ñoom ñu koy wax dalay wër ne bu ñuy wax sax seen poosu bopp moo tax walla lu ñu bëgg a am ngir yóbbu ci seen njaboot bari am na ci ñoo xam ne it am nañ engagement ngir liggéey ngir Touba rek Serigne Touba rek tax kon ni mu amee ci ñoo xam ne dañuy jëf ngir sëriñ bi am na ci ñoo xam ne itam noonu la ñuy jëfee ngir seen poche bopp te incha allahu rabbi man ak ñi nekk ci sama ginnaaw ak ñi xam ne ñëpp maa leen jiite suñu liggéey dañ doon liggéey ngir sëriñ bi dañ doon liggéey ngir dëkku sëriñ bi jëm kanam ci bépp anam ndax tey jii bu ñu sañoon Touba mel ne Paris te ñun ñi teg suñu tànk ci loolu ba ilaa yamil abat ci loolu la ñuy continuer ndax euh, docteur Ablaye Seck moom ak directeur am dañu doon ñoo xam ne lu jëm ci wàllu joxe jiw wi bu njëkk dafa amoon ñoo xam ne xamoon nañ ñi ñu doon jox jiw wi ñi ñu ko doon jox muy xam nañ opérateur économie yi ñi nga xam ne boog ñooy bay di bay ay hectares yu baree bari ñoom ñoo doon jël jiw wi dem di bay yi ñoom lañ ko doon jox Pape Abdoulaye Seck nag dafa doon koo xam ne dañ ko dénk lu jëm ci wàllu mbay mi waaye moom loolu ñoru ko li ko ñor mooy ki ko fa fal ministre bi mu ko def muy xool ñi nga xam ne dañ koy ragal ginnaawam mu jël jiw woowu di leen ko jox te ñooñu mos ñoo bay xalaatu bay te seen xel nekkul ci bay moo tax ñu koy avertiser ne ko bu fekkente ni si dafa nekk di xeex yenn sëriñ si nga xam ne ñoom xam nañ leen ci bay mu jël jiw wi jox ko ñeneen ndax te ñooñu mbay mi ñëru leen loolu dafa jot ñu dénoncé ko wax ak moom ba yëf yi mu delloo ko fu mu nekkoon loolu lañ ci jublu te incha allahu rabbi dinañ ko continuer di ko xeex bu soobee yàlla. waaw loolu du man maa koy décider malgré dañuy wax ne nit ay nit ñu ànd du ñàkk njiit ci seen biir ma jiitu ca waaye itam kenn ku nekk ci ñoom am na ay xalaat xalaat bi mu am bu ñu dajoo danañ ko génne la ca ëpp ca mbooloo ma ku nekk. xam nga ki ki kiy bëgg a dagaan ngir jot ci réew mi ku nekk xam nga ki nga war a mën a parrainer buñ dajee woo ca mbooloo ma dañuy xool ña ca ëpp rek lañ décider ñu ànd ca ak ñoom ndax ku nekk libre nga pour wax fa nga taxawe waaye nag bu fekkee ci biir dëkk bi la moom dañuy décider loo xam ne ci biir dëkk bi lay yem bu fekkee ci hors politique bi la nag dañ koy waxtaanee kuñ ne na mouvement mi ànd ak moom rek ñëpp ànd ceeg moom. non du mouvement politique ndax mouvement servir Touba la tudd te képp kuy politique xëy na di nga bëgg mbooloo mu la jàppale waaye itam dañuy tëb tëb rek ne dañuy dem ànd ak diw sàngam wala diw sàngam ndax ñu ngi ñuy nax bisu bu set politiciens yaa ngi nax sénégalais yi lu nekk ñu ngi koy wax bu ñu waxee tey bu subaa ñu weddi bu ñu waxee tey bu subaa ñu jëf luy firndeel ne seen wax ji ñu waxoon tey jii ak li ñuy jëf dañu waxoon démb ak li ñuy jëf tey du benn moo tax duñu mouvement wu politique mouvement pour servir Touba ngir tuubaa jëm ca kanam ak doomi Touba jëm ca kanam. waaw am nañ ci ay pexe pexe yiñ ci am itam mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ndax taal bu tëw tàkk mu ne lañ koy uppee te ku ne xam na ne biir tuubaa taataa ndox yi fi muy taa. moo xam ci biir marché yi la moo xam ci koñ yi la ndax biir dëkk bi tey jii bari na koo xam ne kenn mënu faa jaar yéen xam ngeen ci dara ba bi ngeen di yegg ci fii loolu pexe yiñ ci am ñun mooy jël suñu doole suñu man-man ak suñuy xalaat yoo xam ne jàpp nañ ne buñ ko joxee buñ ko exploité danañ am nu ñu ko saafaraay jël suñu alal itam def ci ndax loolu encore une fois dañuy wax ne dëkk bi moo ñu ñor loolu itam suñu yitte la te danañ ci def suñu kéem lay kàttan incha allah suñ ko deful ba mu wàññeeku itam à 100 pour cent danañ ko def ba mu wàññeeku à 80 pour cent incha allah. mouvement servir Touba li ñu waxoon dafa doon loo xam ne du du du ngir jàppale pouvoir ci politique lenn rek la ñuy jàppale pouvoir ci mu ñëw ngir liggéey tuuba ñu xam ne ay doomi Touba lañu ñu ànd ceeg ñoom. ci liggéey Touba waaye bu tooyee fii tey ñu takk bu ëllëgee mu wow ñu déplacé ngir ànd ak ñoom di politique déedéet mouvement servir Touba taxawul pour loolu. loolu en tant que bi moom li mu ci am comme xalaat mooy di loo xam ne nit la koo xam ne dangaa nekk ci biir arène bi ne da ngay bëre say adversaire yi nga jàpp ne am nañ doole ngir daaneel nga fexe ba rëq seeni ndigg fànq leen ba boo ñëwee ci biir géew bi doo bëree waaye dangay ngay jël drapeau bi rek yóbbu ne yaa gagné diggante Karim ak Khalifa Sall ak ñeneen ñi nga xam ne sax ay opposants la jàpp leen tëj leen ci biir kaso bi loolu ñun loolu lañ ci am comme xalaat te itam dañ koy faral di waxtaane ci suñu biir lu baree bari loolu itam day day tax nit ki war na xam ne ëllëgat si nguur yàlla moo koy joxe ci kim ñëw tey bu ëllëgee mën naa tuxu dem ci keneen kon yooyu yëpp mën naa ñàkk xalaat boobu lañ ci am xalaatu ku ëpp doole nit ku ku ku jàpp ne boo demee nit ki ci biir arène bi mu daaneel la ba nit ñi dootuñu la gis nga rëq ndigam laax ko jant bi ñun boobu xalaat lañ ci am. Euh, kàddu yi may tàggatoo mooy ñu ñu ñu sant leen yéen journalistes yi gërëm leen bu baax a baax a baax. di dénk dellu di dénk waa population wu Touba nañu ànd ak seeni xel tey xalaat bu baax a baax bu leen kenn jënd bu kenn tax ñu jël seeni ay carte jox ko ku leen neexul muy ab sëriñ bu mu man di doon muy politicien bu man di doon nañu am vigilance bu baax a baax ñu ngi leen di dénk loolu te di ko dénk suñu bopp waaxiru dax waa na alhamdulilah sëriñ Aydara Mbàkke petit-fils de sëñ Massamba président mouvement Servir Touba.